asalaamaaleykum maa ngi tudd Ousmane si di artiste comédien ñu gën ma xam ci Meles bon ñii gën ma xam ci Vieux tamit aussi dëkk fii Thiès Jaxaaw bon Meles mën naa ne idée la boo xamee bon ci ki toogoon fii tey ci la jóge muy metteur en scène bi Alsaan Gueye bon mi ngi amee ci festival Thiès en 2013 muy Fesraay ñu toog bon jékki-jékki ñu ne Thiès dañu war a participer te comme ñoom ñoo woote aussi lépp lu ñuy def dafa war a doon aussi loo xam ne day image bi des la ci nit ñi ñu ne pourquoi pas ñu créer meles parce que mës naa dégg nit ñi naan am na téere boo xam ne boo ko takkee kenn du la gis mun nga def lu la neex kenn du la gis bon ñu distribuer rôle yàlla def man maa loolu ma def mu réussir ak gars yi tamit jàpp buñ si jàpp bon looloo tax mu dem ba law. <laughs> non si am na ñu ko gëm parce que yàlla nee na yàlla daal des fois buy defar yow doo xam sa fu muy jóge bon parce que ci loolu mun naa ne ci nañu gën a commencé ràññee troupe bi yàlla def loo nu joué fekk lu am la tamit aussi parce que man joué naa ko pare bon benn marabu ah ku ñu naan sëñ Abdallah juuf mu koo xam ñu koy nuyuwaale mu ne ma lii ngay wax nii ne dafa am moo tax man ba nga ko njëkkee dama tiit ma ne man booy fu ñu xalaatee lii ba xam ni am na ñu gëm ni kon lii ñu doon war nañ si gën a mën a def loo xam ne nit ñi dañ koy gëm ñu def si lépp lu si war bon ak idée ñëpp partage ko mu doon lii tey daal. waaw <laughs> <laughs> ah, mais gis xam nga àdduna moom loo gis rek liggéey la. bon composition la boo xam ne daanaka ñun dañu amoon habitude bu nekkee répétition maanaam ay affaire de clown moo ñuy neex ku ne di def benn affaire yàlla def un jour ma def loolu affaire bi joxe dara daa parce que nit ki tamit am na boo ko defee yow ci sa bopp di nga ko war a sentir avant keneen di ko sentir ma def ci lu ci war di ci liggéey di ci def ay création euh, ay création du di ci def ay formation ba tey aussi loolu ñëw ba doon loo xam ne dafa jaaxal àdduna bi yëpp ba foo mënti tool ci àdduna ñi ñu ngi naan nii la mel ñi naan nee la mel bon loolu pour man euh, liggéey bu nangu la daal. Mhm. bon ba ma ciy dugg moom mun naa ne côté 2002 la parce que boobu bon mi ngi am benn weekend culturel boo xam ne fii lay am si koñ bi quoi fii jaxaaw bon chaque année mu commencé ci suñu ay grand ñu koy def di ko def ba mu agsi si ñun bon ñu ñëw ba mu ñëw ba ci ñun ñu dem ak suñ benn grand bu ne fi Aziñaan ñëpp xam ko muy alaaji góora ñu ne ko ñun rek weekend dafa am suñu koñ aussi te dañ bëgg ren ñun ñu répété ko jouer ko sunu bopp mu ne waa loolu dama ciy sawar ndaxte moom aussi dafa doon ko am dafa bëgg xale boo xam ne dafa bëgg aar quoi bon ñu ànd ak moom di si répété def weekend boobu ñu jouer ko mu neex nekkate bon mun naa ne foofu lay jaaree doon loo xam ne day bokk suñu deret muy aar ñu koy topp di dem këram di répété di répété di répété moom mu dem voyage ñu jóge fa ànd ak ku ñu naan Alioune Aydara muy lax baabu di répété di répété ba tey loolu doon li mu doon nii tey ba foo tourné tey si dëkk bi ñu ngi naan vieux vieux Mélès waaw. bon man nag jàng naa moom ba troisième quoi secondaire. bon mun naa nee sax lu gën a handicapé sama jàng boobu aar ci la bokk parce que dama dafa demoon ba nga xam ne dafa doon ci man loo xam ne dama ko gëm gëm ni man sama réussite dafa nekk fii parce que aussi des fois nit ki di nga ne si benn affaire mën nga di jàng di jàng di jàng dem ba sori fekk maanaam sunu borom du foofu la def sa réussit day jékki-jékki rek viré la nga dugg ci leneen soit business wala de leneen mu dox mun naa ne bon loolu la noonu la demee daal parce que dama doon jàng nekk ci aar may jàng dem ba nga xamee man aar bi dominé na ma ci lépp gisatuma lu dul nekk ci quoi di ko topp ma ne man daal comme def naa benn yoon examen amul non baa ma teg lii de côté suivre lii quoi parce que lii dafa mel ni sunu borom am na lu ma ci dencal ma topp ko yàlla def li muy def bon ba tey yi ñu toog di sant yàlla daal ci lu mu mënti doon. waaw après aar moom bon man tailleur laa parce que aussi tamit xam nga aar dafa doon loo xamee boo ci duggee si commencement ba bu ko jël moom dong def ko métier parce que du chaque jour la la mën a fayal say soxla foog nga am loo ko boolee lu ndaw loo xam ne même bu dul sax amoo ca dara mais nit ñi nañu gis ni rek yow yaa ngi xëy di nekk ci leneen doon nga koo xam ne da nga bëgg avenir bu bu rafet ëllëg bon ma koy booleeg ñaw ak sam benn grand bon mu moom tamit mu doon ku compréhensif damay toog lu yàgg du ma ñëw topp aar mais day comprendre parce que ñoom it peut-être am na loo xam ne gis nañ ko ci man bon may àndam moom di ñaw di def théâtre ba tey bon maa ngi ci ñaar yëpp waat daal. <laughs> ah mus naa dégg nit wax daal maa ko laaj sax ma ne ko mais jaxaaw dafa garaaw man dafa mel ni jaxaw dafa am mbóot. mu na ma non jaxaaw seen normal ñu am ay nit ñoo xam ne nit ñi dañ leen di ràññee ci àdduna parce que dañ yàgg a teg lu ñaaw seen der kon lii fay la quoi ma ne ko ah nañ nangu rek <laughs> bon ñun nag suñu troupe mi ngi tudd royukaay ah bon Soleil Levant aussi suñuy grand lañu mën nañ ne si ñoom lañu bëggee lii ñuy def si ñoom lañ fa amee lu mu néew néew départ ba tey ñun agsi fii mu doon loo xam maanaam dañuy dox si nit ñeen yéen dañu leen xoolee waa Soleil Levant parce que talent bi ne foofu dafa am ci yéen bon muy loo xam ne dafa rafet en plus ñoo bokk dëkk jaxaaw ñuy suñuy grand jaxaw yàlla daa def ñun dañoo bokk benn amul kii xëcc fii kii di xëcc fii ñun ñëppay ànd di defandoo benn affaire pour mu dox booy gis ni sax muy def dara yow yi da nga siy jàpp pour mu dox jaxaaw noonu la demee ko en plus ñun fa nañ commencé man mii di wax ak yow ak metteur en bi am na aussi keneen ko xam ne fa la commencé mais léegi aussi nekkatu fi dafa voyager bon loolu tam moo ñëwaat bon nekkaat comme nee rek daal aussi. bon yëpp Thiès nañ koy tourner quoi. non même bu dul dara sax ñun cees la am te comme li ñuy def instant yi xaj na biir Thiès nii jamono ji ñu ne nañ ko def cees ba nu dem ba sentir li ñuy def xajatul biir Thiès dong ñu ne new leen ñu génn mais comme ñi ngi am ay millier yu ñu ko tourné fii biir Thiès bon néew ma dinañ si dem Dakar tourné ji mais lu si ëpp gëm naa ni fii nañ koy tourné ak fu nu mënti toll si àdduna parce que ñu nit fii nañu am. Mhm. yow yow yoo xam ko jàngal hmm. rappelé wu ma ko nag. rappelé ko moom peut nii nii moom bon mun naa ne jamono jii sax la gën a doy waar kama ma di wax sa suñu waa kër xam naa naan kii de bu doon woon comédien dina ma jaaxal mais ci sama jeunesse moom mun naa ne su ma la romboon sax doo xam ni romb naa la parce que loo xam ne la suñu borom moo ko def te daa am ku ko mës a wax mi wax a man ma sëgg mu ma jaru ngay sëgg di am kersa yéen amu benn kersa ma ne ko nag yaa ngi jaawale. man usmaan dama am kersa su may dox si si su ma nekkee si su ma nekkul sur seen mais su ma nekkee ci seen moom keneen laay doon bon. <laughs> ci côté aar wala. <laughs> ci lu mu mënti doon. <laughs> waaw na nañu wuti ñax de. ndeysaan parce que ñun moom dañu amoon habitude sama gaal dañuy yar xar bon ñu wuti ñax biir camp ba man daal naka laay duyee saako yi ba baras njëkk rek sama lox tànk bi roofu ci benn kam <laughs> waaye jour boobu xaw ma lu ma fitt moom <laughs> doon na ay jooy yu métti yoo xam ne di ko làmm moom non keroog yéemu naa trop <laughs> ah kàmb bi dafa amoon ay ñax mooy xobu xay yi man nag sama tànk ba muy dugg affaire ba muy fitt benn la mais man ba tey mënu ma laax lii moo la fit bon ah aar bi ne moom wax dëgg yàlla ñaan naa ci yàlla def ci lu ne lu ne loo xamee ni grand yi dem def nañ ko ci ma def ci le plus man parce que loo xam ne la suñu borom def na ko ci ñun ba pare te aussi nu ma ko jàngatee mooy que ni ñun ay message ay messager lañ ñun dañu war di génn dugal gi fekk nit ci benn affaire boo xam ne du du lu baax ñun ñu génnee ko ci teg ko ci yoon bon mu doon loo xam ne aussi dama ci kontaan ah. le fait ko sunu borom def ma comédien man dama ci fier parce que ay nit ñu bëri laay la ñu may wax ay kaa yoo xam ne man damay toog sa naan man fan laa jaar ba def li bon muy métier bu noble bon boo xamee aussi bon ñu ngi ci sant yàlla di si ñaan def ci lu ne dem ci fu ne bon def ci loo xam ne daal suñ tur même bu ñu wane woon aadu dëdd woon àdduna sax suñ tur day des ci Sénégal ku ñëw da koy da koy dégg te dina laajte ñu wax ko ñii lan nañ fi def ñun moom bon am na nu mbebet boobu ci aar daal. bon ñun moom bon du ma nee sa ñun ñaar mais ñun ñëpp daanaka suñu secret mooy ay ñoo ñoo maase te aussi ñooy ànd cas yu lu bëri loo xam ne ni ay ay toj-toj la dañ koy fekkee ndoo dafa am benn complicité daal suñu biir moo tax man muy que ma joué combe dañ xam ne ñaa ñi am na lu ñuy toogee quoi soit naan attaaya la wala añ wala reer. ma ñukk noonu keneen ak keneen noonu bon yàllaay def loolu daal. Mhm. bon instant yi ñu ngi ci benn événement boo xam ne moom la ñuy waaj pour le 14 octobre muy sunu anniversaire bon dañ décidé woon nii ren duñ ko def sax dañuy off mais nit amoo lu dul say soppe te ñoom bu ñu toogee ne def leen ko dañ koy def parce que ñun bon li ñuy def aussi ñoom ñoo tax mu am doole. muy le 14 octobre fii Thiès Sams Prestige quoi bon muy loo xame ne woo nañ ci ñëpp parce que ñun bañ liggéeyee tamit toog xool dañoo gis ni li ñuy liggéey bon du waa Thiès doo nga koy seetaan du waa cees doo nga koy bége du ñoom doo nga ciy def seen ñàkk wala leneen ak leneen àdduna ñëpp koy bége ndax fu ne nit ñi muy ñuy woo ñu ne kon lii duñ ko yemale aussi biir Thiès dañ koy def loo xam ne ku ne ak foo mënti ne ci àdduna bi. waxuma Sénégal foo mënti ne si àdduna bi def ko sa yëf idée boo ci am ñëwal wax ñu ñun ñu dolli ko si pour loolu réussir parce que dañ bëgg mu doon événement bu rëy biir Thiès dañ bëgg maanaam waa Thiès tàmm loolu comme ni ñuy wootee grand théâtre un musicien di way nit ñi di feet di bëgg ñun dañoo bëgg biir Thiès ñi ñëw di toog liggéey ba fi jot ñu jël ay yëpp ñëw toog seetaan pendant une heure de temps ñu leen di béggal di leen reetaanloo ñu fàtte lépp ñu loolu la ñu bëgg mu commencé Thiès law génn àdduna bi bon loolooy suñu ambition aussi ci aar tamit daal ak lii ñuy def événement bi di ñaan ñëpp ñëw daal. <laughs> Euh, <laughs> <laughs> bon mën naa ne aussi koor gi mooy épisode bi Combé di lekk sama xëdd bi doon na lu ma marqué daal <laughs> ndax keroog ku xool action bi da xam ne lu doy waar la <laughs> jigéen kenn du ko dóor jigéen kenn du ko saaga jigéen tàngal la jigéen bonbon la boo ko amee sirete ko <laughs> ah <laughs> non lii fa laa koy yabal <laughs> askan bi xam lu stop daal waaw